asalaamaaleykum mbokk yu bàyyi xel 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamante ne euh, baaxoon nañ ko def muy émission xam sa waay xam sa waay nag ngeen di ci ànd ak Mame Fatou Kébé ma ci ànd ak yéen ngir ngeen mën a xam seen waay euh, tey nag Serigne Cheikhouna Mbaj laa dalal Serigne Cheikhouna Mbaj ku ko wax tamit xam ko ci jànkat bu mag euh, moom laa dalal ngir mën a ànd ak moom ngir ngeen xam ko waaye laataa loolu tamit dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo nuyoo ñu koy seetaan ñu soo ko mën a dugg ci waxtaan wi waaleykum salaam wa rahmatullah ok soxna maam Faty maa ngi lay siyaare bu baax di la delloo nuyu bi di nuyu mbooleem ñi nga xam ni ngi ngi bàyyi xel 24 actu eh, di leen siyaare bu baax a baax eh, di leen baal àq ci weeru koor wi te di leen baal yan suñu borom boo leen di déggal jërëjëf ah dégg ngeen ko ci nuyoo bu am solo boobu Serigne Cheikhouna ku ne xam ne ne émission bi xam sa waay la tudd te buñ ne xam sa waay kenn ku nekk la nga nekk dañu ci daal di bëgg nga fésal ko ba nit ñi daal di koy xam kon ñu daal di bëgg nga daal ñi dugal ci émission bi daal ñi commencé eh, tijjil ko ci njàngum xasida bi bu nekk ñu soog a jàll ci waxtaan bi. aouzu billahi a shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim. wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inda sarsaara hamdi wa shukri liman kulli bihi saara له ردا دون سخط عند سرسارا له سنائي ورضواني بلا شقات مسقاد لي من بني ديمان أنشارا لله كل لدى أبار مكرمات من ارتهلنا وفيها جم من سارا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 <laughs> macha allah dégg ngeen ko ni mu daal di tijjee jataay boobu nekk njaay ngam xasida moo am solo macha allah mm. waaye sëñ naa boo ñu doon wax sëñ naa ci pour ñi nga bëgg nañ koo xam kan mooy sëñ Cheikhouna waa kay soxna Fati euh, Cheikhouna Mbaj moom xam naa ni euh, taalibe sëñ Tuubaa la bu juddoo ci dëkk bi fi laa yeroo itam ba toll nii ma tolloo euh, fi laa defe lépp itam sama njàng muy wàllu euh, école li ma ci jot a jàng fii laa ko jànge li ma jot a jàng ci xam-xam it Touba laa ko jànge kon daal sama lépp Touba la waaw. mu mel njàng mi ci lañ ko xam ñàkkul jaar-jaar yoo xam si ne jot na koo jaar ba ci njàng est-ce que mën nga ñëw dikkaatal tamit ci jaar-jaar yooyu. waaw njàng mi bi ma ci dugg xaw naa teel daanaka mën naa ni sama mfool yëpp ci njàng mi la euh, sama ngoone dal daanaka ci njàng mi laa ko def ndax bi may tàmbali jàng euh, mën naa ni 87 88 euh, kon booba du ma mag ndax man ay vers 78 laa gën a jamono 78 79 daanaka waaye àggu 79 kon teel na ma dugg ci am njàng kon daanaka sama ngone ci jàpp ci njàng laa ko tàmbalee waaye yooyu loolu itam li ma li ma ko yóbbee mooy sama waajur mm, moo ko moo ko daan def Euh, xëy na li ma gën a teel a xirtal ci am njàng euh, loolu loolu ci la bokk muy sama waajur daan ko def daan ko defal Serigne Cheikh Gaynde Fatma euh, bi mu fi jógee ma di ko defal sëñ Mbàkke Soxna Lo fii ci këru Daaru Xudoos gi kon sama njàng foofu la doore bi ma ci jógee itam daanaka mun bi may du may jógee école Daaru Xudoos di 86 87 laa jógee école Daaru Xudoos tàmbalee dem marché ci sama waajur muy wecc ko xasida ci jàkk ji daanaka bu dee bu dul njàng mi moom jaay téere la muy commerce loolu mooy sama act sama sama activité ba léegi itam génnuma ci ba léegi maa ngi ci waaw. waaw njaayum téere mi mm, dematuma marché ba ndax xëy na jot gi mayetuma ko woon ndax koo xam ni daanaka. sa kër rek li nga fi nekk daanaka booy booy calcul at mi bis yi yu néew nga fi nekk mënatoo koo boole ak leneen waaye nag teewul place bi mu ngi foofu ba léegi sama rakk ñoo fa nekk euh, nekkal ma fa ba tey Serigne Cheikhouna Mbathie tamit ku ko wax tamit boole ko ci jànkat yu mag yi ndax donte ne am na ne tamit euh, xam naa ne tamit at yi donte ne àggu fa tamit waaye gis nañ ko tamit muy def ci njàng bi niveau boo xam si ne xam naa ne am njàngam toll na fa macha allah lool tamit ñu bëgg xam tamit euh, kan moo ko def ci yow. waaw loolu day moom xam naa ne dëgg la ginnaaw ba nu ci ba nu ci juddee comme ni ma la ko waxee eh, def nañ ci suñ kem kàttan waaye nag góor góorgóorlu itam eh, li ñu wax rek eh, ku ku àgg rek dañ laa dimbali. kooku kon suñ borom lañ ciy jëkk a sant sant ci sëriñ bi nga xam ne moom nu xirtal ci xaside yi ñu ne ci mu mu dimbali nu ci itam waaye nag góor góorlu nañ ci suñ kem kàttan ndax sunu suñu yitte def nañ ko ci. sunu sunu jot def nañ ko ci euh, donte nit def na ci yitte def ci jotam te taxul xëy na mu agsi fii nu agsi waaye itam kon loolu ndimbalu yàlla rek lañ ko mën a jàppee euh, ginnaaw itam bi ñu santee suñu waajur euh, ñoom itam suyee nañ ci rôle bu am solo. jàngkat euh, njàng mi waaw njàng mi euh, ki ma ci àndal topp ci ginnaawam ay at mooy sëñ Xaadim waaye bi may ànd ak moom itam bi may dem ci moom fekk na maa ngi yor sama kuréel di jàng maa ngi di fana maa ngi fanaane guddi kon euh, dëgg topp naa ci ginnaawam ay at mooma mag féete ma ak mag ci ay at Eh, njàng mi itam moom ma ciy jiitu donte mën naa bañ a bari waaye itam nag eh, jàng naa ci ginnaawam lu baree bari ndax eh, toppee dafa am solo dañuy wax ne loo doonul taalibeem rek doo doon sëriñam topp naa ci ginnaawam ay at def fa sama kem kàttan ba may nekk ci moom itam ab sëriñ laa ko jàppe loo xam ni xëy na ñu fa nekkoon ñëpp xay na nu man nañ doon def waaye euh, ku nekk yaay gën a xam sa bopp ab sëriñ laa ko jàppe woon euh, doon wut barke ci moom suñ boroom itam jàpp naa ni euh, mi ngi ma koy defal hmm. waaw ndax bi nga àndeek ak Serigne Khadim tamit bëgg nañoo xam Serigne Cheikhouna ndax dangaa toog ba Serigne Khadim Gueye moom yi xam ne war nga mën a beru mu daal lay ber wala danga xool yow ba yaakaar ne yow war nga war a am aw sa yoonu bopp nga daal demal sa bopp. xam nga am njàng nag ñaare ñaare ber ci nit ni ko ñëwal ñëwal beru dem bariwul a gis xam nga ni ngay beroo mooy yow kat yaa ngi topp ci nit di ànd ak moom ngay dem di am say programme bopp yow itam ba mu gi say programme mayutu la nga ànd ak moom loolu mooy beru gi ah, xëy na nag dafa am jóginu jógiwun woo xam ni ah, dafay gën a rafetante xam nga léeg leen nga man dara rek daal di dem toog sa kër doo wax doo wax sa jëwriñ dara euh, walla wala sax nga far def ko adversaire waaye bu fekkee dem nga ba xam ni kat topp gi ngay topp ci ginnaawam yow itam euh, yàllaa ngi lay jox ay programme hmm, nit ñaa ngi lay bàyyi xel euh, nga waxtaan ci ak moom ni ko man kat lii ak lii moo nekk sama xel waxtaan ci ak moom ba déggoo ci ak moom loolu moom moo am sama diggante ak moom waaye eh, jàngkat buy jekki-jekki rek woo ki koy aw ni ko toogal mënatoo dem eh, activités yi moom moo moo moo koy imposé waaye du du loo xam ne da nga koy da nga koy da nga koy da koy da koy proposé nit ñi ndax doo mënoo wut jël nit rek ni kii kat faaw ngeen ngeen di ko jàngaloo ndax ci man na nekkoon comme nit ñi ñooy suwaa nag buñ ko suwaa dem ba xam ne moom itam amatul jot nga xam ni li agsi woon ci yow agsi na ci moom rek nga nangu dogal yow itam. Euh, sëriñ Cheikhouna ñu gis tamit ne yow da nga fes ci njàngum wolofal euh, maanaam bu ñu ne da nga fes ci njàngum wolofal mooy dañuy gis euh, say wolofal yu am solo yoo xam si ne yaa ngi koy def yoo xam si ne nit ñi dañ koy bëgg lool lu ci mel ne bu ñu xoolee sëñ Abdou Karim Mbacke bi borom makarimul axlaq ak lu ci mel ne Serigne Salif gis nañ ne tamit nit ñi bokk na ci li ñu sopp ba ci li nga xam ne moo di màggalu Touba gi ñu dëgmal nañ nga daal di génnee ki nga xam si ne moo di njaag nag muy Serigne Touba muy wolofal am solo uh, wolofal yooyu ndax mën nga ñu cee dikka dikkaatal sëñ Seexuna Mbaj day toog di uh, uh, xalaat ci xelam di bindal boppam di fent wala dañ koy fental moom muy waay est-ce que nag man moom duma ko def waaye ku ko bëgg laa mm-hmm. ndax itam dinaa di faral di jàng wolofali sëriñ bi ak waa këram euh, loolu itam euh, mbégteem taalibe yi ndax sëriñ bi moom bu taalibe yi bégee rek ci lislam mu bég euh, loolu itam dana nuy pousser ñuy faral di jàng wolofal wolofal yi ni jàng yitam ñennat ñoo koy woy ci njabootu sëriñ bi wala ay taalibe yoo xam ne mën nañoo woy ñu woy ko ma jàng ko waaye nag man moom duma bind du ma bindal sama bopp wala fal ku mel ni sëñ Maam Mor Anta Diine bu dee wala soxna jaar yi may jàng yëpp daanaka léegi mu xaw a am mat ab lim ndax at mu at mu jot eh, ay ata a ngi nii at mu jot ma ma ma jàng ci benn wala ñaar moom moo koy def moom itam eh, dafa sasoo bu demee poroxaan woy fa soxna si Euh, booba ba léegi itam man itam ay at a ngi nii man itam ma sasoo at mu jot rek ma fental daaj soxna si man itam jël ci wolofal yooyu jàng ko def ko muy sama liggéey ci soxna si bu dee wolofal sëriñ bi itam Ahmadou Baas euh, doomi sëñ Mbay Baas moom itam jàmbaar la lool ci woy euh, wolofal yooyu ngay wax ci sëriñ bi moom moo ko def yenn itam sëñ Moussa Ka koy def ma jàng ko wala ñeneen ci woykat yi fi nekk rek. génn ni rek gis nañ nga daal di fent soxna jaar ndax ni nga ko waxee eh, loolu chaque année seetlu nañ ko da koy daal di fent ba ci poroxaan ji ñu mujj rek gis nañ nga daal di fent muy wolofal boo xam si ne bu am solo la mm-hmm. euh, sabab bi ndax mën ngañ cee dikkaatal sabab bi mooy li ma wax léegi rek euh, nit ku nekk dafay am lu mu lu muy sasoo man jàng laa man euh, xëy na bégal taalibe sëriñ bi gisuma lu ko ëpp solo comme yàlla féetale na ma foofu itam waxtu wu jot euh, ma may may may jëmale sama xel ci loolu euh, du ma yam ci li ma defoon waaye damay gën damay bëgg waxtu wu jot rek may génn yeneen yoo xam ni euh, taalibe yi seen mbégte lay doon jàpp naa ni itam di doon mbégum soxna jaara ndax liggéey bu soxna si nangu la loolu xamal naa ko sama bopp am naa ci ay tegtal yu wér kon nag loolu sama liggéey laa ko def man muy sama liggéey ci soxna jaara bu dee yeneen yi itam sama liggéey ci sëriñ bi euh, loolu rek laaj ci dara génnul daal ci ci ci ci jaamu ci yàlla liggéeyal ci sëriñ bi waaye liggéeyal ci itam bëggal ci taalibe sëriñ bi sëriñ Cheikhouna tamit ñu gis ko jàng bi comme ça ni ma ko waxee macha allah bari na ñoo xam si ne min nañ ko waaye mm-hmm. est-ce que mi ngi def ay tournée internationale comme ni ko yeneen jànkat yi defee wala waaw tournée internationale euh, bu dee sous région yi moom dinaa fay dem léeg muy Afrique am na ci réew yu may dem di fa jàngi waaye bu dee Europe nag euh, xëy na demaguma fa dëgg la euh, ay ay at a ngi nii am ñu koy bëgg waaye xëy na yàlla dogalugu ko ñu ngi ciy dox itam waaye xëy na lu jot rek yomb euh, noonu rek lañ ko mën a jàppee waaye bitim réew bari nañ fa ay soppe yoo xam ni bu ñu sañoon tey tey ñu fekk leen fa yëkkati fa xasida yi waaye nag xëy na bu jotee rek dana yomb lool incha allah. mel ne visa yi tamit gis nañ ne tamit euh, dañ koy joxe ci ñi nga xam si ne tamit am na ñu ñu xam si ne bokkuñu ak jànkat yi est-ce que tamit ñu koy jàppandale comme ça ni ñu koy defee ñeneen ñi nga ak jànkat yi. waaw visa de moom xam nga Sénégal moom daanaka euh, dëkk la boo xam ni yow mii jàng xasida moom wala ngay jàng alquran daanaka amoo accès ci kaw daanaka xëy na ni mu yombee euh, artistes yi ci des. muy comédiens yi wala musiciens yi euh, ñun yombewuñu noonu ndax ñoom xëy na bu ñu bëggee visa buñ bu ñu bu ñu yóbboo seen cassette wala seenub single bu ñu demee mën nañ leen a may visa waaye noonu moom loolu fekk nu ci ndax euh, euh, ni ko nit ñi wute rek lañ koy wute def def demande dugal waaw bu buñ la mayee xayrun buñ la mayut nga xam ni mayuñ la ñeneen ca kaw mën nañoo bind invitation ba tey léeg-léeg duñ la may mën nañoo bind invitation itam ñu may la. ndax yaa ngi dox ay jéego ah maa ngi ciy dox waaw maa ngi ciy dox waaye nag yàlla sotlu waaye am nañ ci yaakaar moom moom jàpp nañ ni fu fu fu fu fu taalibe sëñ bi nekk dañ leen faa war a fekk yëkkati fa xasida yi loolu moom moom la jàpp ci sunu xel ak ci sunu xol <clears throat> te jàpp nañ ni itam yàlla dana ko dugal incha allah. Euh, mën naa ni euh, diggante biñ bi bi bi président waxee ba léegi li ma fi delloo ci ay programme boo koy seet ëpp na fanweer ak lu topp xam naa ni xëy na matul ñaari weer waaye daan fan mat fanweer programme ak lu topp te loolu yëpp bu ne programme la woon boo xam ni programme la woon boo xam ni daanaka euh, programme yu am solo la bokkul du programme yoo xam ne ay ay ay ay kii leen rek waaye yëpp programme yi fanaan la kon nag loolu boo ko seetee lu am solo la waaye nag yàlla moo ko dogal euh, ab jaam itam day nangu ab dogal euh, te sëriñ bi itam comme ginnaaw liggéeyal ko bi ñuy tàmbali liggéey bi séntu ci woon amub dërëm euh, bëgg rek mooñ ci dugaloon euh, mooñ ci bàyyi ba léegi itam kon nag lii dafay war a yokk suñu pas waaye du ko wàññi. ah incha allah macha dégg ngeen ko ni mu daal di waxee kon bas mi xam ngeen ne ñëpp la daal di laal ñuy ñaan rek suñu borom daal ko fi gaaw jeexal ak jàmm ba kenn ku nekk mën a delluwaat sa yite waaye sëriñ Cheikh na ba tey tamit ñu daal di gis ne soppay tamit macha allah euh, bëri na fii ci tuubaa gi ñu nekk ndax Touba rek la ñam wala ñu ngi yeneen région yi soppe mën naa ni partout dans le monde fu nekk la ñuy jote ay ay ay ay ay téléphone bu dee wàllu bu dee wàllu daayira itam Touba am na fi am na dakaar am na Jogo euh, bu dee bu dee par WhatsApp nag moom moom moo gën a yaatu euh, ay kuréelu kuréel la kuréel bi ci gën a mag moom xëy na sama rakk bi moo ko yore mu Moustapha daanaka euh, partout fépp ñu ñëpp dañ cee ñu ci bari dañ cee bokk waaye bokkuñ ci yemuñ ci bokk yi itam dañ cee dañuy génn seen àddee di ma ko jox waxtu jot euh, di ma jàppale di ma itam encouragé ci liggéey bii ma nekk loolu itam man maa ngi leen ci sant ma seen fay xëy na sëñ Tuubaa rek moo tax ñuy def waaye itam maa ngi leen ci sant bu baax a baax lu mat ñaar fukki at ak ñett la war a doon ci ren waaye ren ji moom jot am ndax xëy na euh, tawat ji moo ko waral jàppoon nañ ko sax mu daje ak waaye ñu ñu ne nañ ko toxal ba ba génne ko diggante boobu waaye far yëf yi am ci mënuñ ko woon def ci diggante boobu ñu xam naa dañ koy mujj bàyyi ba déwén waaye de bis bi autorité yi xanaa ñi ma dëkkal euh, ku ñu wax Abdoulaye Seck saa dàgg député daal euh, moom sama wóllëre la euh, at mu jot dana ci feeñal yéeneem waaye à part loolu itam nag daanaka lépp xëy na itam ñun itam ñoo ko jotaleegul ci ñoom xëy na loolu moom ci nun la waaw ay xëy na bis dana ñëw mu dem ci ñoom ñëpp xëy na bu ko laajee. ñoo bëgg est-ce que sëñ Seexuna mhm. mën nañoo xam tamit am naa relation ci ñi nga ñoo nekk ci kujje gi maanaam bu ñu ko waxee muy euh, politiciens yi ndax na ci kujje gi wala ñi ne ci ci ci ci pouvoir bi politiciens yi rek. Mhm. waaw xanaa ñi ma ci xamanteeloon euh, ci bu yàgg avant ñuy doon ñuy dem ci liggéey boobu ñooñu maa ngi am leen te ñoom ba léegi waaye daanaka. Ah, xamaatuma ci ñeneen ñu bees ndax xam nga ñoom euh, seeni seeni mbir dafay xaw a doy war ndax moom xëy na bu ñu soxlaa ci la ñuy daal di jóg dem ci nit ñi te waxtu woo ñu soxla itam xëy na man itam mën na maa bañ am goog genn genn jaxasoo gi ak ñoom euh, jóg itam di dem ci ñoom itam tàmbaleeguma ko euh, xëy na ku nekk ci àdduna itam faaw ngay jaxasoo ak waa àdduna du mën a ñàkk waaye nag am na ci am na ci ay benn benn yoo xam daal ñoo sàkkul seen bopp mhm. ngir ñëw ci man euh, ñooñ itam bariwuñu mhm. waaye am na ci ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci kaw mhm. ñoo xam ni sama yàlla def na sama diggante ñoom ab xame euh, tey ci lii rek lañu ñu soppee ba ba tax ñu xamante ñooñu itam ñu ngi leen di téye bu baax a baax waaw waaye daal Euh, sunu diggante ak euh, politiciens yi ni mu war a jaxasoo dëgg dëgg dëgg dëgg comme di jaxasoo goo xam ne waaw waaw du demeewul noonu <laughs> waaw ku ci nekk euh, daal ñii ab jànkat lañ ma jàppee ma doon seen soppe mhm. Euh, looloo ñu boole. jeex na ah, waaw kon ngeen dégg ko noonu mm. sëñ Cheikhouna Mbathie euh, mu daal dikkaat nag ci olofal bi nga xam seen tamit doon nañ ko wax euh, mu jëmale ko yëkkati woon ko jëmale ko ci Cheikhul Khadim Cheikh Nut ba Khadimal Moustapha su yaakaar tey ëllëg jooju ñu daal di bëgg nga daal ñu ci yëkkati rek ñu daal di a tëj jataay bi. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim. Sëriñ Tuubaa mosamay gi xanaa gabon nga kongoore gile may kay xanaa aras nga ko giire sëriñ Tuuba moo samay gi xanaa gabon nga kongoore gile may kay xanaa aras nga ko giire ba nga tekkee sa ëmbi may gi fa jurubel ca la mbaaxaan jalaabe ak ñoxomboore sëriñ tuuba ba nga tekkee sa ëmbi may gi fa njaareem la bawal jak ba duutu noori kajoor sëriñ tuuba ayaw ba nga fenkee ci réew mi góor ñi nga seexal gétti nañ kaang ya jiitu woon ak i foore jekki leen samba yaane nga na ngi hawlaw amulam kem fa kay ba mbër ya di luure tekki cuuri jox ko dal di ko jiital fari yépp yam la ëmadu doore yow la yàllay damoo cheikh ëmadu bamba yow la yàllay demoo sëriñ tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba yow la yàllay demoo ca kaw ña fi jaaroon jile wax nag malaaka yépp a ko seere jërëjëf xaadimu rasul ku dul bu dajeek noon ba woon gabon du fa góor ay maam daam jërëjëf xaadimu rasul ku dul bu dajeek noon ba woon gabon du fa góore mani dem dil si gaa ngi mbàkke ku dul yow sàmbarigo deew turam bu nu réer senegal tuuti kon mu yàqu dogoon yow ca doy rey tubaab yi jàpp di dóor ba nga sàlloo fi aw ba dem ndar jàll géej dil si réew mi dal di libéré mani baas ndon lu rëy lu ñor li nu am tey sunu waa ji xanaa gabon la ko sóore baarakallaahu ñëpp suur nañu moo tax mani may gi xanaa gabon nga ko ngoore waala taha walqiyaaru salaatan wasalaamun feeg maa ngi jommali foore waala taha والخيار صلاة وسلام fekk ah, maa ngi jommali foore macha allah dégg ngeen ko noonu ci njàng mu Pastef fi nga xam si ne tamit dafa daal di dugg ci xol ku koy déglu bu nekk ci xol àgg moo tax dañ naan ko macha na yàlla wéral baat bi rek Serigne Cheikhouna eh, lan ngay tàggoo ko askan wi lay seetaan ok soxna Fati waaw xanaa di sant bu baax a baax eh, sant bu baax sant bu baax sëriñ bi sant bu baax a baax itam e, Cheikh Mahmoudul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ku taxaw jullit ñi la te taxaw murid yi rawatina jànkatu xasida yi donc koy ñaanal bu baax suñu borom bàyyi ko fi te yàggal ko fi ba li mu yéene liggéey sëñ Tuubaa mu def ko ne mu ko soobee di siyaare bu baax suñu wasila sëñ Xaadim Mbàkke Muhammad moom sëriñ Mbàkke soxna loo donc koy ñaanal yàlla moom itam suñu borom kàttanal ko ba lépp léggéeyam ci lislaam ak ci kër sëriñ bi mu mottili ko sant nañ bu baax sant nañ mboolem rédaction bi sant ñi ñi nga xam ne ñu ngi nuy bàyyi xel sant mboolem soppe yi bàyyiwunu kenn jërë ngeen jëf waaw jërëjëf euh, Serigne Cheikhouna Mbathie la woon ci xam sa waay euh, dégg ngeen tey niñ daal di sekkee ñëw waxtaan bi euh, daal di koy laaj lu bari mën nañ ne xam ngeen kooku Serigne naa Mbathie yéen ñi nga xam si ne bëggoon ngeen a xam kan mooy seen waay tey ji Serigne Cheikhouna Mbathie lañ dal dal dalaloon ngeen dégg ko ñoom daal di tontoo ci question yi nga xam si ne moom lañ doon wax mu nekk jataay bu am solo boo xam si ne yéen ñu koy topp ci 24 actu nii rek la fay daal di demee ndax jataay bi xam sa waay képp ko xam si ne borom xam nga yaa ngi ci biir ñu ngi la ciy xaar ñu leen di sant bu baax di leen gërëm Serigne Cheikhouna Mbaj moom mi nga xam si ne moom lañ dalaloon tey ndax ginnaaw bi nga xam si ne woon nañ ko jotaay bi xaw na xat bette na surtout tamit ci ci heure bi ci jamonoy koor gi waaye loolu lépp ak oyofam tamit mu daal di tax mu daal ñu koy nangul tamit lépp daal di jàpp ni ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñi nga xam si ne ñoo doon bàyyi xel jotaay bi waaye tamit di sant tamit suñ cameraman di sant ñi nga xam si ne tamit ñoo ñu bàyyi xel ci 24actu di leen jox dig daje ci beneen jotaay